delluwaat suñu nuyoo ak suñu ziar ci sëñ Mountakha Bachir Mbacké xalifa général des Mourides di ko ñaanal suñu borom yàggal fi loolu te ànd ak wér di euh, rafetlu nag ndaje bi nu mu tëdde naam euh, toogaay bi yàgg na waaye dañuy waajal kon naa ne jar na ko suñu sañoon nag ci salle bi am na ñu ci bari ñoo xam ne mënoon ngeen see barkeelu ci ay kàddu waaye nag liggéey bi moo xaw a tëdde noonu te parfois tamit xelu doomu aadama day fatu am na si ñoo xam ne ay seede service lañ ñu ngi ci salle bi te am nañ ci wàll boo xam ne mën nañ ko cee def muy également communes yi ndax màggal gi dëgg la Touba la waaye commune Mbacké day impacté te maire mi ngi ci salle bi su dee Diourbel également le maire de la commune de Diourbel ak commissaire central bu Diourbel ñàkkul seen ndam mi ngi ci biir waaye loolu yëpp rek nañ jàpp ne euh, ñenn ñiy xes ba wax jubaale nañ ñëpp kon ñi nga xam ne amoon nañ yéene yëkkati kàddu te nañ ko dugal ci loolu rek te xam ne ndaje bi du ndaje bi mujj pour waajal màggal bi dinañ amaat yeneen occasion yoo xam ne dinañ si mën a wax seen taxawaay Euh, barkellu ci bés bi ndax noonu lañ ko gisee mun na nekk ci kàddu wala si ay jëf li euh, nga xam ne nag moom lañ tënk duñu dellu si ci bonk yi nga xam ne benn par benn jot gi mayuñ ko waaye mun nañ jàpp rek ne lépp loo xamante ne taxawaay la pour gunge comité d'organisation bi euh, état du Sénégal à travers ministère yi nga xam ne ñoo ko yore wala muy service technique dinañ ci dugal seen loxo ci fànn bu ne euh, la ca njëkk ñu xam ne moom lañ fi partagé muy wàllu wër-gi-yaram ak cet d'habitude dispositif médical bi nga xam ne dañ koy teg direction régionale de la santé engagé wu na ne dinañ ko def waaye ñu bàyyi xel ci li nga xam ne moo wër si jumaa ju mag loolu ci tënk moom la ci ne di rafet lu baax it engagement yi nga xam ne hôpitaux yi nekk Touba jël nañ ko pour mun a def également ay gratuité des soins donc pour gën a dimbale ñi nga xam ne ñooy ñëw ci màggal gi ñu koy rafet lu baax waaye di wax rek ne ministère de la santé comme ni mu koy defee dina accompagner donc dispositif boobu nga xam ne moo nekk dans les structures sanitaires euh, le plaidoyer tamit pour ñu yokk caisse d'avance bi dinañ ko def à l'endroit du ministère des finances te yàlla def ka ko yore tamit nekk mun nañ ne doomu Touba muy sëñ Cheikh Diba ah am nañ suñ yortu gu rafet ne ah mun naa am tey mëbët bi nga xam ne ak yéene bi nga yàgg di wax suñu borom mun na ko jaarale ci ci loxo mais li nga xam ne nag administration la dinañ ko def parce que leneen di peut-être wàllu taalibe la mais nag administration moom dinañ jàpp la ñu war jébbal ko kilifa yi nga xam ne ñoo yore ministère des finance pour ñu yokk également caisse d'avance am nay argument yoo xam ne mën naa tax ñu yokk ko ndax carte sanitaire bi yokk na limite nit ñu également yokk na loolu fenn nañ ko def incha allah rabbi ci wàllu hygiène d'habitude ñoom liggéey bi mooy saupoudrage et désinfection loolu dinañ ci wëy wàllu cadre de vie Sonaged jël na jumtukaay ba pare pour mën leen accompagner te am na bés boo xam ne d'habitude pour waa waajal màggal gi dañ koy def mu nekk journée phare lu weesu loolu nag gëm nañ ne taalibe yi ak ñépp nañ ci dugal seen loxo ndax dëkk bi dëkk bu bu sell la ci wàllu ndox ak assainissement mu nekk ñaar yoo xam ne ci lañ ci wala gën a def ay effort pour maîtriser ko wax nañ ko ci bi ñuy ubbi am na secteur yu bare yoo xam ne fim ne nii mun nañ ne à 99 pour cent c'est maîtrisé ñaar yii la nga xam ne moom lañ war a góorgóorlu muy ndoxum naan mi ak ndoxum taw mi am na nag ay jéego yoo xam ne état du Sénégal jàgg na ko def ci wàllu ndox biir Touba. ren it am na si ay jéego muy 5 forage yi nga xam ne daaw lañ ko defoon mun naa ne ñett yi mettre nañ ko en service te engage engagé na ñaari yi desit dinañ ko def balaa bu Tuuba kon loolu foog naa ne jamono yi ñëpp xam nañ ne jafe-jafe ndox mi aussi nag wàññeeku na duñ ne jeex na am nay poche yu des waaye li nga xam ne moo ci nekk dañuy jël rek benn dispositif accompagné ko maanaam gunge ko ba jafe-jafe ndox yi suñu sañoon duñ ko dégg trouba waaye su amee nekk aussi mu nekk néew loolu mooy ay camion citerne yi nga xam ne war nañ ko ci def sa sapeur pompier defoon na ko daaw dinañ ko dagaanaat ci ministère de l'intérieur mu jaarale ko ci général bi nga xam moo yore BNSP pour que lañ defoon daaw ah ñu indiwaat ko mais nag teel koo indi ndax balaa dem beeg dikk bi di indi jafe-jafe maa ngi wax léegi préfet Mbacké ne ren it am na loo xam ne mun nañ ko ci tirer à daaw dañu seetlu ne ndox mi ñu ngi ko doon tibe encore ci réseau interne bi maanaam forage bi nekkoon forage Darou te loolu mën nañ di jafe-jafe ci distribution bi naam diggante bi état réalisé na projet transfert d'eau ndox mu neex jëla ko Sadio indi ko Mbàkke SEN'EAU am na ñaari potence yoo xam ne ma nga fa war nañu mën a xalaat ne yenn camions yi Mbàkke Touba soriwul mais ñu mën a ñaan SEN'EAU mu mettre à la disposition de du comité d'organisation potence yooyu su ko defee du am incidence ci réseau interne bi nekk tubaab loolu foog naa ci cadre concertation bi il faudra inviter la CNO ngeen xool ndox mu neex boobu nga xam ne état def na ko jële ko Sadio indi ko Mbàkke nan lañ ko mën a waxee aussi mu am contribution bu rëy ci biir màggal tubaab bi loolu foog naa ne dina nekk point boo xam ne dina dimbale également askani Touba ci ravitaillement ndax foog naa début bi attan na ko te du am benn jeexital au niveau de la commune de Mbacké donc loolu foog ne dina nekk loo xam ne ren ji dinañ ko intégré ci euh, wàllu distribution de l'eau euh, les eaux et forêts d'habitude ñu ngi koy def ñu koy waxaat effort également camions yi nga xam ne wax na ko lim bi pour accompagner nañ ko indi mais lépp rek na teel ñëw balaa dem beeg dikk bi di gàllankoor mais nag avec une coordination dañuy def effort yu bari mais parfois coordination bi muy indi ay jafe-jafe ci gestion camion yooyu loolu foo naa ne loolu également euh, préfet yeeg comité d'organisation dinañ ci waxtaan xool nan lañ koy mën ba jafe-jafe ndox bi wàññeeku ci màggal gi nga xam moom lañ dëgmal ci wàllu assainissement loolu également muy beneen ndox bi am nay travaux yu fa ne liggéey bi sori na waaye euh, il faut des mesures conservatoires te loolu ONAS war na ci liggéey ci situ ngelamu ak sit yi nga xam ne xalaat nañ ne mënul préfet ak màggal daaw defoon nañ ko ay mesures conservatoires lañ ca defoon ba mën na wàññi donc mën mi au niveau de la commune beneen bi nga xam ne waxuñ ko ci c'était muy point wu devanture mairie bi daaw amoon nañ si ay jafe-jafe yu mag mais ren foog naa jël na décision pour jéem ko regle def si benn dispositif avec un joxante ndax daaw dembeek dikk bi tuyaux yi da doon am gàllankoor doo foo naa loolu suñu ko réglé aussi dembeek dikk bi Touba dina dina dina gën a gën a jàppandi leneen la muy wàllu courant énergie Sénélec ñu ngi leen di remercier bu baax si effort yi ñu def et incha allah comme ni ñu ko waxee mise en service poste d'eau bi nga xam moo nekk Touba dina gën a encore jàppandi la distribution de au niveau de la ville sainte yeneen yi muy kaaraange gi dañ leen di jaajëfal bu baax muy les forces de défense et de sécurité ndax événement bu toll noonu dafay laaj taxawaay yoo xam ne takk der war nañ ko am te foog naa ne at yëpp gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen di jaajëfal bu baax euh, ñuy yokkaat rek ndax chaque année la nga natoon il faut nga dolliwaat ci leneen ci lim mais également ci point yoo xam ne war nañ ko mën a tenir ndax dëkk bi mooy mooy màgge noonu ñeneen ñu bëri jóge ay région également muy côté secteur gendarmerie nañ jël un dispositif et ñuy ñaaxaat ndax daaw euh, chemin de fer Sénégal def nañ ko mettre en service am na ci loo xam ne jóge na ci ci wàllu kaaraange nañ intégré encore une fois les passages à niveau dans le dispositif sécuritaire donc chacun nag si sa zone de compétence la am na foo xam ne compétence police la ñàkkul am na foo xam ne compétence gendarmerie ku nekk rek taxawaay bi nga ci war a am pour gunge également donc les chemins de fer du Sénégal ba nit ñi ñëw si jàmm dellu si jàmm ndax foo naa le transport en masse mun na permettre ñu wàññi accident de la te loolu également Sénégal dem dikk ñu ngi leen di demander accompagner lool xam naa ne du neex na suñu mbokk transporteurs yi waaye nag il faut concurrence am ndax su defee bu boobaa euh, njëg la dina gën a jàppandi te am nañ si yaakaar ne objectif bi mooy nit ñi ñëw màggal si jàmm dellu si jàmm te ñoom it transporteurs yi loolu moo war a nekk seen objectif di remercier encore yëpp li loo xam ne nag tënk nañ ko fi muy approvisionnement et contrôle muy communication dinañ ko def ci benn tableau comme ni ñu ko defee nii jëlaat observation yi nga xam ne jëm na fi jébbal ko chaque chef de service bu fi nekk dinañ ko jox nga xam ne ñun bi ñu defee CRD lii la ñuy xaar ci yéen jox ko également le niveau central muy les ministères concernés ndax am na dogal yoo xam ne ci kaw lay jóge ñaareel liggéey bi ñu defit mooy maintenant à partir d'aujourd'hui def un suivi bi parce que nekkatul léegi nag ay doléance li ci am solo nag mooy lañ tënk lan ak lan lañ ci def semaine par semaine weer ba ba ni ñu egg ci bés ba su ko defee maintenant am na système bu ñu ko mën a defee ah lépp loo xam ne ba nga ko mu nekk en vert li nga xam ne c'est en nga def ko orange li nga xam ne nag laalaguñ ko mu xonk loolu foo naa dina tax xonk-xonk yi ci bare nga xam ne affaire yi yéex na su dee lu vert moo gën a sakkan nga xam ne ñu ngi def ay jéeg loolu foo naa ne préfet bu mbàkk également dina ko assurer ndax moo gën a jege mais au niveau central tamit lépp loo xam ne nañ ko relancer dinañ ko ci def defoon nañ ko daaw jéeg ak daaw it ndax mën nañu wax ne. lii mi ngi dem ci kayit alors que sur le terrain soo demee fekk fa leneen moom taxoon ñu defoon les mercredis grand magal de Touba depuis deux ans ren incha allah teel nañu def CRD bi dinañu permettre également si yenn secteurs yëpp ñu def lépp mais am nañ yoo xam ne xam nañ ne ay secteurs clés la ñu def encore ay de terrain ànd ko comité d' bi ak service yu koy rek lu ñu mën a jubanti balaa bës ba ñu mën ko jubanti loolu également incha allah rabbi amaat nañ yéen wéyal ko di sàkku rek sëñ bi ci foofu la ñuy euh, daanale ay ñaan ñu ñaanal réew mi suñu borom def fi def si jàmm ñaanal nag également kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi muy président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ak mboolee jëwriñ bi nekk ci gouvernement bi ah suñu borom may leen kàttan gi nga xam ne yéene gi ñu am pour liggéey réew mi mu nekk njëriñu askan wi suñu borom mottali ko te mu nekk njëriñu réew mi yëpp loolu également ñu ngi ko ci daagaan ñaanal également service yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy gunge ci liggéey bi xam nañ ne si ngeen nekk waaye dañuy féddali rek ba suñu borom mooy leen wër également ak kattan gi nga xam ne dañ mën a suivre engagement yi nga xam ne moom la fi jëm kàddu yooyu lañ bëggoon jël rek ci euh, ñaan ñu joxal kàddu bi ñu tëj kook ñaan ba ñu tëj ko rek en français donc